office national des forage ruraux di kuréel gi nga xam ne moom moo gàlloo saytu lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ci réew bu Sénégal ak forage yi moom nag door na xaat ak màggalam ci dëkk bu sell bi ci Touba daal di koy tàmbalee ci ab visite de terrain boo xam ne nii def na ko ci juróomi forage yoo xam ne nii ñu ngi ko fas yéenee sumb fii ci dëkk bu sell bi ci Touba. biñ defee l'évaluation li nga xam ne lii jàlloon na daaw ak yee ak yee weesu ñu xool naka lañ mën a sumbe liggéey boo xam ne bii ko defee yaakaar nañ ne daal. wàllu ndox dana am lu ci saafara ci loolu am na engagement yoo xam ne yii ministre bi jëloon na ko fi ci ndigalu le chef de l'État dañuy réaliser yi ay forage ba ci njëkk ñaari forage lañ waxoon mais biñ demee bu ci biir ne nañ Touba il ñu yokk loolu moom moo tax tey jii sumb na ñeenti forage yoo xam ne yii état bi moo ko sumb am ci beneen boo xam ne bii aussi maaw mu ngi ci juróomi forage bu ñu sukkandikoo ci kàdduk Seydi Ndaw mi nga xam ne moom mooy directeur OFOR ma ngay fësal ne juróomi forage yooyu lee yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di office national des forages ruraux ñoom ñoo ko sumb benn bi nekk Daaru Marnaan nag ki nga xam ne moom moo ko def moom moo di kuréel gi saytu lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ci dëkk bu sell bi di Touba di Maou Rahmati jàpp nañu ne juróomi forage yooyu bu noppee nañ am capacité bu toll ci ñaar fukki ju mètre cube bu te loolu lee mën naa wàññi bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne nii askan wi dañ koy am ci jamonoy màggal Touba ci lu jëm ci wàllum ndox loolu yëpp nag bu ñu ko jëlee dana doon production boo xam ne bii dana àgg ci vingt mille mètres cubes vingt mille mètres cubes boo ko doon xayma tey jii norme yi nga xam ne yi moom lañ jël ci nga xam ne moom la nit war a jëfandikoo ci ndox mën na doy huit cent mille sacs donc ñu yaakaar ne donc effort boobu boobu nga xam ne bii def ngeen gouvernement bi def ngeen ñu bokk ko boole ak extension réseau bi am nañ yaakaar bu baax ne ci moom seeni ndaw ci tëjtal kàddoo muy fësal ne kilifa yi faaw mu dolli ci ay ñaan ngir li nga xam ne moom moo jëm ci màggal Touba ndox bu dee ñàkk itam mu dal di nekk ci anam ba mu gëna a néewee waaye itam ci anam ba mu gëna a woyofee waaye itam muy fësal ne nguurug Sénégal bépp matuwaay boo xam ne nii war na koo jël dana ko jël sukkandiku itam ci doole ji nga xam ne nii maamu raxmati am na ko ak ñaan yi yile kàddu la seeni ndaw tëjee. mais nag ñaanee ñu puus rek yaakaar nañ ne donc ci ay fan yu nekk incha allah la loolu yëpp am ñu gis ndox mi ñu mën a doy sëkk en tout cas loolu la ñuy ñaan yàlla